jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu si waat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu invité Pape Amadou Fall di journaliste analyste politique moom la ñu invité tey fas yéene waxtaanee ak moom lépp loo xam ne aju na ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu. ñu euh, génn euh, moom la ñu fas yéene waxtaanee euh, ginnaaw loolu avant ñuy commencer émission bi Pape Amadou Fall ginnaaw bi ñu amee mbégte invité la fii waaye ñu massawu askan wi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci Sénégal gi yëpp rawatina askan wi yeewoo Dakar ak taw yi nga xam ne am na démb ak li mu jur ni ay jafe-jafe doyen Pape Amadou Fall journaliste analyse politique maa ngi am mbégte di la nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy déglu rajo réew mi yëpp di nuyu personnel bi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ak ki nga xam ne moom mooy seen kilifa it di euh, Mbagnick. Pape Amadou Fall yow ngay journaliste analyste politique euh, nga masawu tuuti askanu Ndakaaru ci taw yi nga xam ne taw na ko démb ci àjjuma ji. Euh, dañuy sant yàlla ba pare ndax bu ñu egsee ci li nga xam ne moom mooy jamono yii di weeru ut. dañ naan ndox lañu soxla ndox dafay suuxat réew te yàlla bu ko bu nu ko mayee nanu sant yàlla gërëm ko ndax njeexital la moom mooy bu fekkee yàlla may nañu ñu am ndox moo xam ni bu ngeen li nga xam ne moom mooy meññeef yi dinañ réew mi mënut nekk ci li nga xam ne moom mooy xiif dañuy am yaakaar kon ne bu nawet wàccee Euh, dana am loo xam ne dina ko def ci wàllu bi nga xam ne moom mooy koomu réew mi yàlla buy defar day mel ni kuy yàq te ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci ndox mi faaw ñu massawu leen massawu leen ba mu gën a euh, jëm kaw lool ne nag it yàlla na yàlla woyfal li nga xam ne moom mooy métit yi yàlla na ko yàlla def ba ñu am dëkk boo nga xam ne ci wàllu nga xam ne moom mooy wàllu assainissement parce que foofu la liggéey bi ne bu ndox ñëwatee dootul yàq bu ndox ñëwatee dootul taa day ñëw rek continuer dem ñëpp rek ci li nga xam ne moom mooy jàmm alhamdulilahi rabbil alamin waaw euh, Pape Amadou Fall ba tey ci lu jëm ci euh, wàllum euh, tawu demb bi am na ay leader yu jot a génn di laaj milliards yi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la dugal ci inondation yi yow loolu lan moo ci sa gis-gis. waaw xam nga xam nga euh, réew moom danga nga naan euh, nanuy topp li nga xam ne moom mooy pexe yi suñ ne lu tolloog juróom-ñaari milliards dañuy def plan décennal ba nga xam ne dafa jëm euh, ci ñu dugal ci lu tolloog juróom-ñaari. téeméer téeméeri milliards. war nañoo mën a topp xaalis ba. xam fu mu jaar nan lañ ko doxalee te loolu assemblée nationale am na daaw ay jéego yoo xam ne defoon na ko waaye askan wi faaw ñu wax ak ñoom foog ñu gën leen leeral ci wàllu bi nga xam ne moom moo jëm ci loolu te yaakaar naa ni eh, bu ñu demee ci la nga xam ne moom mooy pencu réew ma laaj ñi nga xam ne ñoom la ñu war a laaj ci li jëm ci fànn boobu war na mën a wax askan wi ah fii lañ ko jaarale bu fekkee jaarale nañ ko fa nag te terewut li nga xam ne moom la ñuy dund fi mu toll nii euh, bëgg a wéy dinañ déedéet du kon nanu seet nan la ñuy joyantee te boo nee nag da ngay joyanti te dugal euh, xaalis bu tol noonu faaw nga ni kon euh, ña yoroon la nga xam ne moom mooy liggéey ba dañuy wax ak ñoom dañuy wax ak ñoom bu fekkee dafa jar ay daan ñu indi li nga xam ne moom mooy ay daan su fekkee leneen la ñu war a mën a indi ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay ñu def ko ci wàllu taxawaay waaye daal Euh, décennal bo nga xam ne boo fukki at la ci wàllu bi nga xam ne moom mooy xaalis ñu naan dugal nañ ko ci dugal nañ ko ci naam dégg naa député bo nga xam ne daf ne du juróom-ñaari téeméeri milliards yëpp lañ ca def ci wàllu bi nga xam ne moom mooy liggéey bi waaye allah kulli alin jar naa gëstuwaat daal ba xam nan la ñu war a taxawee li nga xam ne moom mooy askan wi. jërëjëf euh, Pape Amadou Fall journaliste analyste politique ñu daal di wax nag euh, ci li nga xam ne tey moom mooy élection législative yi nga xam ne amal nañ ko dimanche fan ak benn ci weeru sulet atum deux mille euh, vingt deux euh, de manière générale ni nga xam ne moom lañ doxalee élection yow ni nga ko gisee jour élection yi ndax jàpp nga ne euh, organiser nañ élection yi ci ak dal ci loo xamante ni tey njortu nga ne ak leeraange am na ci. waaw xam nga li ñu mën a wax gannaaw li nga xam ne moom la ñu gis. mooy ne ci bis bi nga xam ne moom mooy fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi. ci bis bu ñuy organiser élection yi kàddu jëmul ci ne am na fu ñuy luubal juróom-ñetti waxtu ci suba ubbi nañ bureau de vote yi juróom benn waxtu ca ngoon tëj nañu lu ëpp ci li nga xam ne moom mooy bureau de vote bu dul te loolu la yoon wax gën dégguñu fenn foo nga xam ni presque yëkkati nañ fa kàddu xam ni dafa jëm ci wàllu bi nga xam ne moom mooy ñaxtu ci administration bi ni nga xam ne noonu la liggéey ba sax foofu ci gàttal rek dinaa ne li nga xam ne moom mooy kuréel yi jóge woon bitim réew ay CEDEAO euh, wañe wala Union européenne ak même société civile bi nga xam ne moom moo nekk ci Sénégal amoon ay euh, euh, observateur ci wàllu nga xam ne moom mooy liggéey bi ñoom ñëpp dañoo rafetlu ci li ci ëpp liggéey bi ni nga xam ne noonu lañ ko doxalee kon dinañ ne élection yi niñ ko organiser aw na yoon ndax su fekkoon ne awul yoon du ñàkk ñu déggoon ci yenn gox goxaat yi eh, ñu yëkkati fa loo xam ne dañ naan ah fii de buñ fi duutee baaraam dinañ ne ñii ñaxtu woon nañu eh, ci li nga xam ne moom mooy seen wàllu taxawaay. d'accord euh, bu paasee loolu euh, Pape Modou euh, Pape Amadou Fall li nga xam ne tey mooy coalition yi gis nañu ne coalition Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition wàllu Yewwi presque euh, mën nañu wax ne dañoo témboo li ñu rawante bëriwul dañoo diirante mbagg yow intercoalition wàllu yeewi bi ñu def yow bi nga ko bi élection yi passé nii ñu joxe résultat yi ndax gis nga ne euh, loolu ñu defoon pour mën a faagaagal benn bokk yaakaar ndax jàpp nga ne am nañ si réussite. xam nga ki ngànk réew. booy xeex ak moom. moo amoon 2017 téeméer ak ñaar fukk ak juróomi député. ñoom ñoo génnoon ci urne ya ren ñu ñëw ñu ne ci wàllu wi nga xam ne moom mooy ku jegi am na ñoo xam ne dañoo joxante loxo muy ko intercoalition Yewwi yow maanaam ñu tënk ko rek ci Ousmane Sonko Khalifa Sall jox loxo ki nga xam ne moom mooy maître Ablaye Wade tey bu ñu xayma ci wàllu wi nga xam ne moom mooy député yu ñuy am ñoom ñu am juróom-ñett fukk ak benn su ma juumul. juróom-ñett fukk la ñu am quatre-vingt. waaw juróom-ñett fukk. waaw ah. juróom-ñett fukk. ma nga xam ni amoon na téeméer ak ñaar fukk ak juróom 2017 tey am juróom-ñett fukk ak ñaar. Ah. dinañ ne ñoonu ñooñu def nañ jéego bu am solo ci li nga xam ne moom mooy taxawaayu ku jéggi. ndeete amuñu li nga xam ne moom la Benno am dinañ ne gësam nañu li nga xam ne moom mooy réew mi wan ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Benno ne seen taxawaay war ngeen ko seetluwaat ci li nga xam ne moom mooy seen yorinu li nga xam ne moom mooy réew mi askan wi bu leen buurul it wan na leen ni bëgg na ngeen doxaleen neneen li nga xam ne moom mooy taxawaay ak yorinu réew mi loolu kon dinañ ne lañ doon wut day moo doon detteel li nga xam ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar detteeluñ ko naam waaye seen jéego sori na ci wàll bi nga xam ne moom mooy taxawaay te loolu day indi mu war a am njàngat ci li jëm li nga xam ne moom mooy réew mi ni ko war a yore. ban jàngat la ci nguur gi war a amee. waa xam nga jàngati nag euh, dafay bari lool ndax euh, Sénégal ku nekk euh, xam na ni fii ñu toll nii ci wàllu bi nga xam ne moom mooy yorin maanaam gouvernance wala ñi nga xam ne ñoom ñooy kujj gi duut seen baaraam ba li ñu am ci wàllu bi nga xam ne moom mooy ay député tey ñu am ko ndax boo jëlee lu jëm ci wàllu bi nga xam ne moom mooy njàng mi boo jëlee ci wàllu bi nga xam ne moom mooy wàllu euh, wérgu yaram su ma taxawee ci ñaar yooyu rek. ak ak dund gu métti dund gu njëg yu yokk yi. ah njëg yu yokk yi. comment. ma ne njëg yu yokk yi aussi. waaw waaw non non moo tax dama ni damay bëgg duut baram ci ñaar yooyu rek. pour wax la grève yi nga xam ne ñoom ñooy am depuis mois de janvier bi nga xam ne moom mooy deux mille vingt et euh, euh, euh, deux mille vingt deux. grève yi dafa tegloo. carnassé mu wane ay ñaxtu yoo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fa taxaw réew mi war nañoo joyanti xoolaat seetluwaat njëkk yi ngay xam ne moom ngay wax xam nga njëkk yi moom boo ci taxawee sax dañ naan ñu bari dañ naan waaw crise euh, euh, Russie euh, bi nga xam ne moom moo am ak Ukraine ci wàllu bi nga xam ne moom mooy pëccxoo boobu nga xam ne am na ci diggante ñaar yooyu yooyu ñuy xeex moo tax njëkk yi dafa yokk ci àdduna mais bala ñoo egg ci ci li nga xam ne moom mooy crise booba waaw naam am na solo ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay mais it da ngay gis ne ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaayu Sénégal euh, am na noo xam ne moom la ñu waroon mën a yore réew mi ci wàllu nga xam ne mbay meek euh, li nga xam ne moom la ñuy bay dundee. mooy sàmm gi euh, aussi ah. mooy sàmm gi géej gi. dafa dafa yaatu dafa yaatu parce que licence de pêche yeeg euh, tabaski ji yàlla defal nañu sutura ba am nañu ci li nga xam ne moom moo doon xar yu ci wàllu tabaski ji mais njàqar ji euh, taxawoon na ndax danañ ko amam déet. d'accord léegi euh, Pape Amadou Fall. waaw moo taxoon ma ne réew mi dañ ko war a joyanti. d'accord yaa ngi wax ni réew mi dañ ko war a joyanti maanaam yaa ngi wax grève yi am ci éducation ak ci santé waaye dafa am ñenn ñoo xam ne. dañu jàpp ne askan bi lu jëm ci wàllum euh, ñetteelu mandat bi nga xam ne ñenn ñi njort nañu ne njiitu réew mi daf koo bëgg ak euh, lu jëm ci ñenn ñi nga xam ne santir nañu ne injustice am na ci euh, am na ci réew mi ak lu jëm ci wàllum borom ñaari tur yi ñenn ñi jàpp nañ ne loolu bokk na ci li tax vote sanction am ci élection yi. waaw nañu wax waaw nañu wax waaw mais xam nga problème mu borom ñaari tuur yi man soofantalu ma ko ah mais dama naan 2012 bi Macky Sall di jël réew mi problème mu borom ñaari tuur yaa ngi fi woon mi ngi fi woon te terewul Macky sal élection yu bari daw na fi gañe na ko tey li ñuy yëkkati jëme ko ci borom ñi nga xam ne ñoom ñooy borom ñaari tuur yi nañu wax ay la ne ki nga xam ne moo Macky sal nee na duñu ko fi mës a jox li nga xam ne moom mooy gëdd ci réew mi ndax duñu ko mës a jox loi boo nga xam ne daf koy autoriser mu di fi am xel xalaatu ko ci Sénégal ñun li ëpp ci réew mi ay jullit lañu te dañoo contre li nga xam ne moom moo jëm ci loolu kon mën naa am cër boo nga xam ne am na ko ci li nga xam ne moom moo indi tey euh, ñu sanctionné benn bokk yaakaar mais dama koy jàpp ci yeneen dama koy jàpp man ci yeneen yoo xam ni euh, ci wàllu xam ne moom mooy dayoo ak xool li nga xam ne moom mooy ñu réew mi moom moo ca gën a fës ci wàllu bi nga xam ne moom mooy wàllu taxawaay. Uh-huh. tey ñu mel ni man yow ak ñeneen ci réew mi tey xam nga boo dee déggee dañ la naan euh, jox leen ma suma quatre cent mille jëmee ko ci wàllu bi nga xam ne moom mooy pétrole bi ñu ngi koy dégg ndeete pour nga indi firnde ci ne dañoo luubal ci li nga xam ne dafa jëm ci pétrole bi doonul lu yomb mais dama bëgg a tënk ci wax ne ku jéggi. dañoo gis ay bunt yoo nga xam ne fa la ñu mën a déeyee ci làmmiñu li nga xam ne moom mooy li ëpp wala lenn ci askan wi pour wax leen ni li tax réew mi dellu ginnaaw li tax Macky Sall ñu war ko fee jógee li tax gouvernement am war a daanu li tax Benno Bokk Yaakaar war a war bañ a amati baat te xam ne moom mooy assemblée nationale ponk yii la te ponk yooyu wax nañ ko de manière générale looloo tax ma ni joyanti li nga xam ne moom mooy nekkin ci wàllu wi nga xam ne moom mooy yorin loolu mooy li nga xam ne moom mooy message bi ñu lancé Macky Sall. mais mais mais mais mais Pape Amadou Fall est-ce que nguur gi nekkul ci fin de règne fin de règne maanaam askanu ñoo dummoo yu nguur gi ba mënatuñoo dégg wala sax ñu gis lu baax li nga xam ne def na ko fi. gis nga foofu boo fa ñëwee euh, dafa am njàngat loo xam ne euh, boroom xam-xam yu màcc dañoo dañoo indil. ci doxalinu li nga xam ne moom mooy réewum Sénégal ay takk ak ay seetlu yoo xam ne yu am solo la. parce que nee nañ réew mi bi mu amee indépendance en 1960 diggante 1960 ak 1970 Léopold Sédar Senghor grève bu métti ba nga xam ne amoon na 1968 témboo woon ak li nga xam ne moom mooy li ñu li ñu doon wax euh, mai 1968 adduna ni mu jaxasoo woon mai 1968. Léopold Sédar Senghor dafa waroon ñàkk li nga xam ne moom mooy euh, pouvoir am mu indi Abdou Diouf en 1970 comme premier ministre 1981 mu ne nguur kenn du ko ŋàcc loolu la Léopold Sédar Senghor waxoon kon problème si dix ans 1968 70 euh, dix ans wala onze ans 1970 1981 Senghor dem. Abdou Diouf jël dix ans wala huit ans mille neuf cent euh, quatre vingt et un euh, mille neuf cent quatre vingt huit mu am euh, pëccoxoo gu metti encore ci Sénégal keroog ci jamono yooyu la président maître Abdoulaye Wade waxoon ne duma ma jóg ci ay cadavre pour dem ca palais ba mille neuf cent euh, quatre-vingt-onze jafe-jafe yu tar yi nga xam ne Sénégal ci la nekkoon ñoom Ablaye Wade nangoo dugg ci la nga xam ne moom mooy gouvernement bi dévaluation franc CFA ñëw mille neuf cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-seize su ma suma ma ma su ma jumbul ñoom Ablaye Ablaye Wade duggaat ci bi parce que am na amoon na ay ay yoo xam ne amoon na mille neuf cent quatre-vingt-quatorze ba élections yi na mu jeexee ba mu jeexee ñoom Ablaye Wade dugaloon nañu leen ci li nga xam ne moom mooy kaso bi mais en deux mille donc dix ans yi ñëwaat en deux mille Ablaye Wade dafa jël guur gi muy la première alternance bi nga xam ne Sénégal moom la dund douze ans après parce que même bi ñu defee élection yi nga xam ne moom mooy mille neuf cent euh, mooy élection wu deux mille sept yi jafe-jafe feeñoon na ci li nga xam ne moom mooy nguurug Ablaye Wade ba ñu bari jàppoon ne góor gi duñ ko falaat jamono yooyu lañ la wax góor gi nañ ko góor gi nañ ko bàyyi mu yeggale góor gi nañ ko bàyyi mu yeggale mais àlakul yàlla périodicité bi mooy cycle yi dix ans yi nga xam ne moom la ñu wax 2012 Macky Sall dafa jël li nga xam ne moom mooy nguur gi mais 2012 2022 ñu ngi ci 2022 kon sooy wax fin de règne man dinaa ne en tout cas dafa am dimension cyclique boo xam ne dafa am sénégalais yi dañuy suur fukki at yu ne presque dañuy bëgg ñu soppi li nga xam ne moom mooy nguur gi gis nga Mamadou Lamine Loum mi nga xam ne moom moo doon premier ministre euh, Abdou Diouf en 2000 bi Abdou Diouf daanoo biñ ci tegee at wala ñu teg ci ñaari at ndax moom kàddoom du euh, euh, euh, bariwul mais bañ ko invité ci li nga xam ne moom mooy ay waxtaan daf ne mais ñun dañu tolloon foog xam ni ñu ngi doon jooyanti réew mi te ku bàyyi xel di nga ne Abdou Diouf ñu ngi doon jooyanti réew mi ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay tey ci fii nga xam ne fa la ñu toll ci deux mille vingt deux boo xoolee li nga xam ne moom la Macky Sall liggéey ci réew mi te loolu kenn mënu ko natable liggéey na li nga xam ne moom mooy réew mi. mais mais mais est-ce que lim def mooy priorité aussi ci askan bi. askanu Sénégal est-ce que loolu mooy priorité oh, xam nga loolu leneen la. Mm-hmm. parce que parce que dañ ne. mais xam nga mais mais Pape Amadou Fall mën nga liggéey mais am na leneen loo xam ne moo waroon nekk lu njëkk. rawatina askan bi bu ñu bëggee faju faju bu ñu bëggee lekk lekk. may ma ñëw may ma ma ñëw xam nga gouvernement da nga naan daanu dajul fépp. kon nañu tegaale li nga xam ne moom mooy priorité. suñuy priorité ci li nga xam ne moom mooy suñu gis-gis. naam nag foofu d'accord naa ak yow dee yoo ak askan wi ba mën leen a wax lan ngeen bëgg ñu def ko priorité njàng mi mooy priorité wérgu yaramu askan wi moom mooy priorité mais boo xoolee ci biir dawal nañ li nga xam ne moom mooy ay bourse familiale ñenn ñi ne nañ dañ koo politiquer waaw li jëm ci wàllu bi nga xam ne moom mooy mbay mi bëggoon nañ mu doon loo xam ne lu gën a dëgër la allah kulli allin mooy li ma wax daanu daju dajul fépp te askanu ñoom la nga xam ne moom la ñu bëgg te bëggoon ko ñu defal leen ko xëy na am na loo xam ne def na ci mais nag du tere ñu ne Macky Sall liggéey na réew mi. d'accord réew mi changé na ci wàllu nga xam ne moom mooy infrastructure infrastructure et sur le plan structurel loolu dafa doon loo xam ne lu am solo la ci taxawaayu réew. d'accord euh, Pape Fall moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM léegi sànq ci sa biir wax. Euh, historiquement parlant bi nga tuddee euh, Abdou Senghor Abdou Diouf ba maître Abdoulaye wadd ba président Macky Sall ci fukki at yi ndax comme nee nga Sénégal yi dañu mel lu suur Euh, ndax li dese président mag Sall bu jooyantee ndax ak mbëggeel mën naa amaat gu sax digganteem ak askan bi. waaw man nag du buggumay def météo. mais ci li nga jàpp ci li nga jàpp. waaw ba euh, euh, ci li ma jàpp. xam nga dix-huit mois moom moo des. pour li nga xam ne moom mooy président deuxième mandat wu Macky Sall bi jeex. man deuxième mandat rek laay wax. pour mu jeex dix-huit mois lan la ñuy séntu ci li nga xam ne moom mooy taxawaayu réew fi mu toll nii ci li nga xam ne moom mooy koom yi nga xam ne moom la ñuy séntu ak nañ ko war a mën a doxalee ba askan wi gis ci seen bopp foofu laa bëgg a jax jëkk a taxaw dañ ne janvier deux mille vingt trois pétrole bi ak gaz bi danañ ko commencé jaay suñ ko commencé jaay am na ñoo nga xam ne dañ naan neuf cent milliards dina dugg ci li nga xam ne moom mooy réew mi ñu ni nan lañ koy séddalee pour askan wi mën cee gis seen bopp su fekkee séddale nañ ko askan wi gis ci seen bopp askan wi dina commencé di noyyi di nayi sax lay wax ba ne am na ci ñoo xam ne mën nañ jàpp ne ah kii kat lañ ko doon tuumal wax dëgg fa yàlla loxoom dafa jotul woon ginnaawam te du bu ñu amee neuf cent milliards yi sax ci ci diggante deux mille vingt trois euh, ci digg euh, deux mille mille vingt quatre boobu du tax ñu ne Sénégal loxoom jot na ginnaawam waaye dina tene ndax mën nañ ne ci jamono yooyu bu ñu nee wàllu wi nga xam ne moom mooy wàllu wér yaram ñu ne fu ñu doon fayee fukk léegi dañuy fay dërëm ñu ne wàllu bi nga xam ne moom moo jëm euh, wàllu euh, transport bi tukk dem ak dikk ñu ne fu ñu doon fayee fukk dinañ fay ñaari dërëm wala dinañ fay euh, ñett fifteen et cetera yu mel noonu askan wi gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy kon pétrole bi ak gaz bi. Ah. dañuy daal di ne ah Macky Sall kat liggéeyam am na solo. d'accord ndax day tax nag ñu ubbil ko ay bunt yeneen. d'accord léegi euh, euh, Pape Amadou Fall président Macky Sall dama ko mos a dégg ci benn ndaje bu mu doon amal ak benn bokk yaakaar. mu wax leen na leen ak fal du caaga ne da ngay sori askan wi wala da ngay tëj say porte wala da ngay tëj say euh, bureau wala say téléphone ni mu ko junjee woon daal dafa mel ni dafa bëggoon a wax ne yéen dañu leen a jox ay ndombee tànk waaye da a sori askan wi ndax jàpp nga ne ak jege askan wi am na si ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ngir ñu mën a xam jafe-jafe askan bi. xam nga mënoo wax ne ñoom ñëpp noonu la ñu mel am na ci ñoo xam ne dañoo ta seen i bunt am na ci ministre wala ay ministères yoo xam ne lañu ñu séntu woon ci wàllu nga xam ne moom mooy seen jegeñoo ak askan wi ba mën a jël li nga xam ne moom mooy seen ndéey amul gis nga booy booy déglu sax Sénégal yi dañ la naan buur ayul dag dag yaa ay dañ la naan euh, non seen euh, Macky Sall du problème bi ñi ko wër ñoom ñooy problème bi loolu moom mooy li nga xam ne moom la opinion bi jàpp ci li ci ëpp. est-ce jàpp nga ne est-ce que yow mi Pape Amadou jàpp nga ne loolu moo am. mais xam nga man li ma jàpp amul solo man damay dee yoog askan wi rek. non mais am na solo ndax yow yaa ngi ci biir askan bi. xam moo tax moo tax ma ne la soo dee yoog askan wi seen kàddu bi nga xam ne moom mooy gën a jolli man bu ma neexee ma ne la tey pour ma pour ma gis ab ministre du problème ci man mais est-ce que loolu moom moo am solo. du man li may wax moo am solo moo tax may ne li may jegeñ askan wi di déeyoog askan wi su fekkoon ne ministre yi dañ doon def noonu pour xam fan la réew mi toll xëy na yenn jafe-jafe yi du ma ne du am waaye dinañ saafara saafara ba doon dina doon loo xam ne lu gën a yomb la ministre yi dañoo sore askan wi ci li ci ëpp parce que mënoon nañ téeméer nga ne téeméer bépp dañoo bon déedéet am na ci ñoo xam ni ñu ngi liggéey correctement seen diggante ak li nga xam ne moom mooy askan wi maanaam kon ndey la ñuy eh, eh, déeyoog Macky Sall ci li mu leen di wax ni dee leen jegeñ askan wi ñoo ña ngi koy def mais am na ci ñoo xam ne defuñu ko. d' accord loolu moom mooy wax ji. d' accord jërëjëf euh, Pape Amadou Fall léegi ñu wax ci euh, wàllum transhumance ndax élection locale yi bi mu passé dañoo gis ne président Macky Sall bëri na ay maire yu nekkoon ci guddi gi yoo xam ne ronq na leen indi ci wetam ak bi ñuy waaj élection législative yi waaye dafay mel ni. wàllum transhumance transhumant yi sénégal yi dañ leen di dañ leen di jéppi ndax day jël koo xam ne da doon gagné ab localité waaye su ko jël ñëwee ci moom rek dafay mel ni euh, dafay ñàkk doole wàll yow lan moo ci sa gis-gis. Sénégal jëm kanam. Sénégal jëm kanam. ndax bu fekkoon ni démb da nga daal gis cib gox kon xam ne jox nañ fa jox nañ ko fa baat nguur gi ñëw buddi ko indi ko ci wetam. bu ñu demee ci la nga xam ne moom mooy wote. gox booba ànd ak ka xam ne moom la nguur gi buddi tey loolu soppeeku na ci li nga xam ne moom mooy réew mi transhumance ni mu delloo ginnaaw réew ku ko xamoon doo ca sori parce que nag dañ naan gor ca wax ja teg ay teg walis rek wala teg ay milliards rek wala ay millions tax nga won ginnaaw ñi nga xam ne démb ak démb ñoo la gunge tuñ la ba tey ñu di la tudd fu ne bàyyiwuloo xel ca loolu loola am na ko xam ne ñëw na tegal na la ci taabal ji rek nga daan ne ah ñama ñama àndaloon démb ak bërki démb day la nga xam ne moom lañ doon xeex man génn naa ca loola parce que dem naa ca leneen looloo tax sanction bi ñëw transhumance dafa doon loo xam ni a la ma gëm te ñu bari gëm nañ ko mooy day gën di dellu ginnaaw ci li nga xam ne moom mooy réew mi mais nag loolu également dafay ànd ak leneen. il faut que idéologiquement nit ñi gën a taxaw ci li nga xam ne moom mooy seen i gëm-gëm taxaw ci li nga xam ne moom mooy seen i gëm-gëm xam nga dañ naan gor ca wax ja gor day ñeme péete booy dee ñeme péete booy dundu ñeme péete. d'accord léegi waaye su fekkee. waaw waaw bismillah waaw léegi mais Pape Amadou Fall mais dafa mel ni président Macky Sall moom amut lu muy jàngee ci wàllum transhumance ndax dañu gis ne. tey par exemple tey ku mel ni Idrissa Seck président Macky Sall daf ko jëloon indi ko ci wetam Idi mi doon gagné Thiès ñu gañe ko Thiès ñaari yoon ñu gis na tey Idrissa Seck mi nga xam ne 2019 dafa gañe woon département Mbacké surtout commune bu Touba gañe bureau de vote yëpp bi mu ñëwee ci président Macky Sall ñu gis ne gox yooyu Idi daf ko ànd ak Macky Sall perte ko waaye teewul tey la président Macky Sall gën a mën a risqué di jël ay transhumance dafa mel ni moom amul lenn lu mu si jàngate. waaw xam nga njàngal <laughs> njàngal li tey dina am. bu ñu génnee ci li nga xam ne moom mooy législative yi gëm nañ ne njàngat dina am ndeete nag dañoo toll ci période boo nga xam ne fi mu toll nii ñoom juróom-ñetti fukki député ak ñaar la ñu am quatre-vingt-deux moom la ñu am kon di nga gis ñoo nga xam ne dinañ jóge ci camp dem ca fekk si ko ci li nga xam ne moom mooy camp mais askan wi li nga xam ne moom la ñuy doxal mooy li nga xam ne moom moo am solo sëriñ bi askan wi li ñuy doxal mooy ku def lu ne weng rek ñu jaay la ko ba mu mat sëkk ndax dinañ la won ni toxu taxatu tekki dégg nga li ma wax toxu xatu a tekki te loolu moom mooy li nga xam ni moom la ñu war a normé ci fi nga xam ne moom mooy réew mi boo jógee dem parce que tegal nañ la walis wala jox nañ la li nga xam ne moom mooy ay avantage ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sa ginnaaw gëmoon la parce que da nga daan bañ mais boo bañatul ñu dem seeti keneen kuy bañ ànd ak moom ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay lool la ñuy dund fi mu toll nii ci li nga xam ne moom mooy diggante eh, élection locale yi ñu génn ak li nga xam ne moom mooy élection législative yi maanaam alal alal ku mu jiital du taxati nga tekki. Mhm. xanaa nga doon ko nga xam ne sur le plan individuel da doxal sa bopp mënal sa bopp eh, pexe fexeel sa bopp. waaye damay toxu dinaa indaale mbooloo. waa waa jeex na presque Sénégal même Pape Amadou Fall beneen euh, li ñu gis mooy état bi euh, ñun ci li ñu gis bëri na gox yoo xam ne ay kàngamu benn bokk yaakaar ñoo fa nekkoon ñii nekk ay milliardaire ñu ne génn nañu euh, alal ju bare bari mais teewul dañ leen ne sanctionné ci seen gox en général sax ka leen fay gañe mën naa bañ a nekk koo xam ne sax tey mën naa bañ a yor xaalis waaye ay milliardaire la fay fekk ay borom ndombay tànk yu mag loolu dafa xaalis bi moo nekkatul influence wala askan bi dañ koy lekk ba pare def lu leen neex lu xew ci loolu. njàngat ci cim réew dafay sori. gis nga professeur Madior Diouf. mille cent deux mille la woon. dafa am kàddu bu am solo bu mu yëkkati woon. booba ma nga dar ki nga xam ne moom mooy Ablaye Wade wuti li nga xam ne moom mooy réew mi ba yàlla def alternance ci Sénégal professeur Madior Diouf moo ne woon alal ji leen di jox yéen ko moom ñi koy yëkkati di leen ko indil pour ne leen na ngeen ñu jox seen baat ñooñu dañoo amul benn sañ-sañ ci yéen ndax seen baat yéen a ko moom ku yëkkati xaalis jox leen lekk leen te bu ngeen duggee ci mbañ gàcce gi def li nga xam ne moom ngeen war a def mooy li ngeen gëm xaalis bi ñu joxee ci réew mi fi mu toll nii di ko séddale ñenn ñi ak ñeneen ñi dafa doon loo xam ni sénégalais yi tey dañ koo dépassé am na ñoo xam ni bu élection jubee ñu ne suñu campagne taxaw na ci ñoom la ñuy jaar. bu ñu leen joxee ñaari millions ñetti millions ñeenti millions juróomi millions ñu jël ñett jël juróomi téeméer séddale nit ñi la ca des ñu def ci ñu def ci li nga xam ne moom mooy seen gafaka parce que dañ koy dañ koy def li nga xam ne moom mooy seen campagne. kon wàll wi nga xam ne moom mooy transhumance ak wàll wi nga xam ne moom mooy ak tasaare xaalis yaakaar ne nit ñi nañ la nañ leen woteel Sénégal mi dafay soppeeku ku ko xam. Euh, dina di nga am neneen nooy doxale ku ko xamul boo sàggul ne da nga yàq sa xaalis rek. d'accord. léegi euh, Pape Amadou Fall beneen njàngat boo xam ne wala beneen euh, remarque boo xam ne def nañ ko ci élection législative yi dañoo gis ne capital régional yëpp parce que wala yi si ëpp euh, yeewi wàllu ñoom ñoo ko gañe tey fu ci mel ni Dakar boo demoon tey Thiès Thiès ville Bambey ville Diourbel ville Touba Kaolack Saint-Louis Louga Kolda yooyu yëpp opposition bi gañe ko ba ci Mbour Sédhiou Ziguinchor ban jàngat ngay am ci euh, capital régional yooyu nga xam ne tey opposition bi ñoo ko gañee waaw xam nga capital régional yi euh, dañ naan métit bi fa lay gën a fese ci li nga xam ne moom mooy askan wi jafe-jafe yu tar yi foofa gën a fëse ci wàllu li nga xam ne moom mooy dunduñu doomu aadama yi am na ci ñoo xam ni tey ndax li ñuy wax le mirage de capitales day am ñoo xam ni dañuy jóge ci gox goxaat yu ndaw yi milieu rural lay wax ñëw Dakar am yaakaar lool ne bu ñu ñëwee war nañ fee bana tekki wala ñi nga xam ne ñoom ñu dëkk Dakar tey nga gis kër goo nga xam ni boroom kër ga ñetti nit te ñuy yeewoo ca kër ga moom la jur ak ki nga xam ne moom mooy euh, soxnaam waaye kër ga fukk nit ak juróom danañ fa yeewoo fukk nit ak juróom yooyu mu war leen a yore. parce que dañoo ñëw féete ci moom mënu leen a bàyyi loolu moom mooy famille sénégalaise ci ci loolu nag bu de doonee xam ne lu nuy lu nuy takk la dinañ ne kër goo yewoo ñii ñi ngi gobar jaasi ñii bu ñu yewoo du ñu ndékki ñii bu ñu añee du ñu reer moo tax booy dox ci mbeddu ndakaar wi wala ci mbeddu Kaolack wala ci mbeddu yeneen gox-goxaan yi loo fay gis guddi taabal yaa ngi tegle ñii di jaay eh, caakiri ñii di jaay cere ñii di jaay et cetera et cetera mbedd mi lañuy ñuy eh, reere ci mbedd mi la ñuy reere loolu day mandargal li nga xam ne moom mooy jafe-jafe parce que borom kër ga munul loxoom jotul gannaawam loolu nag mooy feeñ ci li nga xam ne moom mooy urne yi. bu ñu demee di wote ji. Mm-hmm. naqar yooyu jafe-jafe yooyu. lu tar yooyu boo bëggee dem ci li nga xam ne moom mooy ab dispensaire boo ñëwee taxaw doo gis ku la faj. wala boo dikkee ordonnance kese moom lañ lay bindal nga dem ca fa nga xam ne moom mooy pharmacie bi pour jënd euh, ordonnance bi mu doon loo xam ni dangay ngay dat sa bopp ne lii fan laa koy jëlee hôpitaux yi la même chose donc ville les grandes villes pour ñu doon ñoo nga xam ne dañu wane li nga xam ne moom mooy seen naqar mal gouvernance bi ci foofu nga nga koy matte ci li nga xam ne moom moo moo ëpp ci Sénégal. d' accord jërëjëf euh, Pape Amadou Fall mbokk yi euh, moom la ñu invité tey journaliste analyste politique ci rajo Réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h léegi euh, doyen ñu wax ci li nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar am ci nombre de députés pour le moment provisoirement ak li nga xam ne moom la ku jéggi am ñu gis ne bu njëkk ma ngi doog di am. Euh, nguur gi amuñu li nga xam ne tey moom mooy majorité euh, loolu ndax du indi instabilité ci ci ci yorinu assemblée national bi ak est-ce que tamit nguur gi et gouvernement bi du ñu am pression saa su nekk ndax dañuy soxla alliance négocier waxtaan. waaw dafa am loo laaj léegi nga may ma. ma équilibré. parce que da laaj dëkku kaw yi. dëkku euh, li nga xam ne moom mooy taax yi. lu tax boîte bi mel nii mais <laughs> dëkku kaw yi laaj ma lu tax eh, ñoom it ñu jox li nga xam ne moom mooy baat. Eh, Macky Sall lu waral loolu ndax nee ñu sax monde rural bi ñoom ñoo ko sauvé. xam nga équité territoriale sooy déglu Macky Sall ci li nga xam ne moom mooy ay discours am sooy déglu li nga xam ne dafa jëm ci nanu fexe ba ñi nekk ci goxu kaw yi ñoom it ñu won leen ni bokk nañ ci réew mi ñu ngi dund. dafa am ay programme yu mag yoo xam ne ñoom la ñu def foofa purement PUDC ak euh, ak yeneen yu ni mel waaw yoo xam ne tey boo demee ci gox-goxaan yi waaw Sokone gi nga xam ne fala euh, euh, fala fala dëkk wala yenn gox yi kaw yi da nga gis ne askan wi de dañu gis ci ne ñoom ñu ngi ab li nga xam ne ñoom ñooy yokkute kon ñooñu bu ñu wotalee Macky Sall teg nga wax baat bi ñoom ñoo ko sauvé ci wàllu bi nga xam ne moom mooy fi ñu toll nii ça maintenant ci Macky Sall am na quatre-vingt-deux députés ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, kuje gi boo leen xayma ñoom ñëpp boole leen da nga am nañ quatre-vingt-cinq députés. waaw ndax Pape Djibril Fall ki nga xam ne moom mooy Pape Diop ki nga xam ne moom mooy euh, euh, nu mu tuddati Thierno sal Sall. Ah, ñoo demoon di xeex. di ah. xeex li nga xam ne moom mooy coalition Benno. dañoo demoon ci xeex ko. mo am ci nag ñaari coalition yo euh, intercoalition boo xam ne moom moo taxaw yow ak Yewwi boo boolee li nga xam ne am nañ ko ñu am quatre-vingts baat du noonu la. quatre-vingts mais quatre-vingts baat yooyu nga xam ne moom la ñu am nañu bàyyi xel bala ñoo dugg ci leneen waa yow waa kër Ousmane Sonko yi sëñ Mansour Sy Jamel jóge na fa avant ñuy voté te ñu ngi naan am na ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi woon ci liste suppléant yi te ñooñu tey dañ leen a fan fal ñu doon ay député maître mussa Diop moom it am na baat am na baatu député bon xam ne dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa yow kon am na ñett député yoo xam ne ci li nga xam ne moom mooy la ñuy séntu ne ñooñu du ñu nekk ci li nga xam ne moom mooy liste yow bi nan la ñuy positionné woo mënu ma la mënu ma la koo wax fii mu toll nii mënu ma la koo wax ndax dañuy doon ay député indépendant wala beneen posture la ñuy taxaw mais nañ jàpp ne ki nga xam ne moom mooy sëñ Mansour Sy Djamil moom dafa ne woon woote leen benn bokk yaakaar du loolu am na. am na oui kon mais mais mais même bu dee même bu dee tey ñoom am nañu majorité ay député ñëw nañ dollee ko si ci coalition Yewwi wala wàllu euh, nam doon demee bu njëkk mën na ne bañ a demee. ci bi ñuy tàmbalee waxtaan bi ñëw nañ ci loolu. soo amoon téeméer ak ñaar fukk ak juróomi député tey nga am li nga xam ne moom mooy juróom ñett fukki député ak ñaar wax dëgg fa yàlla boo nee delluwuma ginnaaw ci li nga xam ne moom mooy sama taxawaay dangay ngay nax sa bopp. mais deltu nga ginnaaw da ngay sëlëm sa bopp mais mais mais mais stabilité bi nga amoon maanaam da nga doon def li ngay def sans pression ndax da nga amoon maximum de député mais boo bokkut ak ngay taxale ay cinq député ay dix député xam ne ku absenté wala wala ku nangam. xam nga instabilité gëm naa ni munul am. mais pression dina am. une pression extrêmement forte sax. parce que nag su fekkee danga nga déparé juróom-ñett fukk. ak ñaar ñii ñëw di ànd ak yow ci wàllu wi nga xam ne moom mooy liggéey bi du ma ne nañ la chantage de waaye di nga bàyyi xel ci ni nga xam ne moom nga doon doxale am na ci ay loi yoo xam ne tey da daan jàll assemblée nationale te kenn sax du ko xool député yi boole ceeg kaddu yi nga xam ne moom la ñu teg treizième législature bi ci nañuy taxawee woon li nga xam ne moom mooy réew mi faw ñu indi li nga xam ne moom mooy beneen dimension ci wàllu nga xam ne moom mooy seen lekkin te boole ci yow ak Yewwi euh, ci wàllu nga xam ne moom mooy seen taxawaay. yow ak wàllu. Euh, yow ak wàllu. Hmm. ci wàllu nga xam ne moom mooy seen seen seen seen taxawaay mais seen kaddu dañ koy fësal ndax tey jox nañ leen cër boo nga xam ne ak gëdd boo nga xam ne ci assemblée nationale il faut ñu wan li nga xam ne moom mooy askan wi ne sunu teewaay dina doon loo xam ne lu ñu ràññee lay doon. nga yaakaar ni ku mel ni un un un vingt Marius Sagna un euh, Vincent Mon euh, euh, nu mu député bi moom tey. moon nga xam ne alhamdulilah ah. moom demul demul demul assemblée ren. ah loolu de bett loolu loolu loolu moom jàpp ma ko woon. waaw moom tey si aar la bokkoon moo nekkoon moo leen jiite woon fi nga xam ne moom mooy Kaolack moo nekkoon ci si départementale bu aar Sénégal. ah c'est dommage. c'est dommage c'est c'est man jàppoon jàppoon naa ne bokk na parce que c'était l'un des meilleurs députés que le Sénégal ait connu hein euh, mais mais ba euh, askan wi wax na mais li am solo mooy daal ku jege dinañ wane li nga xam ne moom mooy seen taxawaay. d'accord dinañ wane seen taxawaay. ba ba na nga xam ne moom la ñu bëggoon a dox daan doxalee. Uh-huh. dootuñu ko mën. léegi léegi profilu député yi nga jot a dégg yaa ngi wax moom tey sànq mais ku mel ni tey Guy Marius Sagna euh, Barthélémy Dias ay ndaw ñoo xam ne tey ñoo ngi ci kuje gi. fas yéene dem assemblée national te daanañ gis sax opposition bi daanañ fa néew euh, te ay mag ñoo si ëppoon te daanañ gis niñ fa doon taxawee ak ak ak pouvoir bi te bii nii mu nekk ay ndaw ñu baree baree bari ci ko jigi ñoo xam ne fas yéene nañ faa dem loolu ban jàngat nga am ci profil yooyu ak euh, assemblée bii di ñëw nii. xam nga ci pas-pasu nit nii rek la ñuy mën a am yaakaar. am na ci ñoo xam ne wane nañ nañu mel te doonaguñ député. mu mel ni Guy Marius Sagna. oui mu mel ni ku mel ni Barthélémy Diaz. wane nañ ni mën nañoo jege li nga xam ne moom mooy askan wi ci wàllu wi nga xam ne moom mooy déeyoo pour indi li nga xam ne moom mooy un nouveau projet ci wàllu wi nga xam ne moom mooy taxawaay non pas un nouveau projet boo nga xam ne dañ koy adapté mais un nouveau projet boo nga xam ne lañ ciy gis mooy bu ñu ko defee dinañ ne aska askan dinañ ne askan wi ñun ka fii la ñu toll ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi mu siiw ndax li nga xam ne moom moo daan ñàkk mooy gouvernement bi da daan dugal li nga xam ne moom mooy ay projet te askan wi duñ dara du ñu xam lan mooy euh, danger ba wala lan mooy li nga xam ne moom mooy avantage bi tey ma gëm ne assemblée nationale buy communiquer ak peuple bi ca la ñu jëm te assemblée nationale buy communiquer ak peuple bi day mën a tax ñu gën a ràññee li nga xam ne moom mooy taxawaayu député yi ndax luñ daan fan eh, eh, jamono yi ñu génn ci treizième législature bi ay député yoo xam ne dañuy xeex ak xuloo ci wax joo nga xam ni waxi kasaaw kasaaw la. Ah, mais est-ce que du avantage tamit ci nguur gi pour ñu teg seeni mbir ci yoon. ndax maanaam am ku la contrôler koo xam ne teg na la bët sëkkatal na la est-ce que du tax tamit nguur gi gën a mën a jubbanti jubbantiku. xam nga ci ci fànn boobu. Eh, ba ñu ne l'exécutif et le législatif la définir li nga xam ne moom mooy relation yi soo ma bëggee jox loo xam ne baaxul pour suma réew soxla ma doon député majorité wala ma doon député opposition ndax ki ma fal mooy askan wi kooku laa fa taxawal doonuma député diw wala doonuma député Masamba wala doonuma député Mademba député askan wi laa kon loolu soxlawuñ tey ñu naan waaw maa nga faloo ci ku jege wala maa nga fa déedéet damay ñëw ngir sama baat bi nga xam ne moom laa dagan ci askan wi ma delloo njukkal li nga xam ne moom mooy askan wi bu jubee ma ne li jub na bu jubul ma ŋawti ŋawtee ko ba ñëpp dégg ma nu mën a def ba loola du jàll ndax day loola li nga xam ne moom mooy réew mi ma jéem a nekk ci la nga xam ne moom mooy loola. kon ñi nekk tey ci li nga xam ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar ñu séntu ñoom ñooy doon yor li nga xam ne moom mooy majorité bi séntu ci ñoom ñu ñëw toog rek. bu ñu yëkkatee loi rek teg ci seen seen kanam ñu ne ah euh, man kat dañ may fay ñaari million dañ may jox juni litre essence wala dañ may fay juróomi million dañ may jox junni déedéet boo tegee bët ci loolu doo liggéey. da ngay teg bët li nga xam ne moom mooy soxlay askan bi d' accord jërëjëf euh, Pape Amadou euh, Fall journaliste analyste politique yow la ñu invité ci rajo réew mi réew mi FM léegi ñi nga xam ne ñooy coalition Yewwi ñoom dañu tuumaal Benno Bokk Yaakaar ne dañoo def ay fraude ay falsification ci ay procès verbaux fi nga xam ne tey mooy ci ay département ci Fouta fu ci mel ni ay raneru ay Kanel ay maatam ay Podor yow lu ci sa xalaat bi nga déggee loolu. ana ana seeni représentant ya fa nekkoon. nañu wane li nga xam ne moom mooy procès verbaux yi. parce que nag wax dañ koy taaj. xam nga dañ ne intercoalition. kon ñu séntu ne ñoom bureau de vote fu mu mënti nekk ci Sénégal. waroon nañ fa am nit ko xam ne daf leen fa teewal. bu ñu defee vote bi ba mu jeex. ñu taxaw tey ne dañoo buuree ay urnes yi. seen nit ya fa nekkoon lan lañ doon jariñ parce que nag foo nekkul yaa sa bopp ci li nga xam ne moom mooy élection. dañuy wax rek ngir yàlla. foo nekkul buñ ne fii dañuy séddale nga ne teewuma wala dama am jafe-jafe ka fa teew danaan fuuf lépp. loo ko wax loo ko wax bokkatul ci li nga xam ne moom mooy mandute su fekkee dafa am ay fraude il faut qu'on parce que loolu day déstabiliser li nga xam ne moom mooy le système démocratique te bu ñu amee ay preuve nañ ko teg ci kaw taabal ji wax ko sénégalais yi mu leer nañ waaye bu fekkee wax joo xam ne waxi kasaaw kasaw la mënut a doon loo xam ne luy wéy la nañu réguler li nga xam ne moom mooy système bi. bu wa waa Benno bu leen neexee ñoom it ñu ne Casamance dafa am ay fraude parce que foofa dañ leen fa gagné buñ neexee ñu ne Kaolack dañ fa am ay fraude wala Dakar dafa am ay fraude man wax yu mel noonu wax dëgg fa yàlla li nga xam ne moom laa ci bëgg a jariñoo mooy ndax bureau de vote yi représentant yëpp ña nga fa ndax taxaw nañu ni nga xam ne moom la ñu war a taxawee loolu bu amee ñu ne bu ñu dénoncé ñu ne waaw a ah lo ñii de dañoo am foo xam ne fa lañ ko teg waaye sooy dénoncé te li ngay wax tegoo ko fenn man dama ciy teylu. d'accord jërëjëf Pape Amadou fa léegi ëllëgu intercoalition. Yewwi ak wàllu Sénégal ëllëgëm ba ah, ndax xam nga si gis-gis. bon euh, ça dépend ci intérêt yi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy wut ak fa ñu jëm. mais ndax jàpp nga ne ndax jàpp nga ne intercoalition la boo xam ne mën naa yàgg trop. gëmuma ko. gëmoo ko. déedéet lu tax gëmoo ko. xam nga lu euh, tax gëmuma ko. dañuy jëm ci rendez-vous ba nga xam ne. ci seen biir ñoom. ci li nga xam ne moom la ñu déggagum. faw ñu fantasiru bu fekkee Ousmane Sonko dafa bëgg rendez-vous deux mille vingt quatre mu doon kandida xalifa Sall te foofa damay jàpp ci baatu ki nga xam ne moom mooy euh, Barthélémy Diaz ne man Khalifa Sall lay jàppale kon dama naan tasaaroo bi mu taxaw na ba pare ñaata weer la ñuy àndaat feek ñuy jëm ci la nga xam ne moom mooy wote ba mënuma ko xam mais leneen li nga xam ne moom la ñuy mën a jàpp moom mooy Euh, euh, ñaari du ñu bokk benn benn mbalka te yaakaar naa ni Ousmane Sonko kenn du ko mën a teree doon candidat deux mille vingt quatre su fekkee Khalifa Sall nag dafa nekk ci li nga xam ne euh, la même détermination kon war nañu mën a séntu ne déjà ci biir ñoom seen coalition saro dina fa am. mais est-ce que jàppoo ne. mais est-ce que may ma ma ñëw. may ma ma ñëw. ni nga xam ne ñoom ñooy waa kër président Ablaye Wade ku nekk xam na ne. Ablaye Wade combat ci li ko des ci des ci adduna moom mooy na Karim Wade dollu si Karim Wade doon candidat. léegi Karim Wade pour mu nekk candidat moo Khalifa Sall est-ce que dina yomb fi ak deux mille vingt quatre wala ndax politiquement parlant tey jàpp nga ne mooy avantage su euh, Macky Sall mu amnistie leen. xam nga euh, <laughs> dama lay indil baat bu yomb nag politique du biir day wasin. maanaam mën nga fi gis ay combinaison yoo nga xam ni ñakoy koy lal ñun nekkuñu seen wet. am amuñu ndey li kon ka muy feeñee day doon loo xam ni dañuy yew rek gis ko ndax nag am na loo xam ne boo koy lal boo ko bëggee wax ci mbedd mi ah, boo sàggoon du sotti. loo bëgg a wax foofu te yaa ngi yaa ngi wax ne ndax président Macky Sall ah, noo ko waxeeti. dama ne la politiquement. waaw tey mu amnistie woon Karim Wade Khalifa Sall. du moo ko gën noppal. ka mu bàyyi ka mu bañ leen a amnistie xam ne ñooñu mën na ñoo ñëw songandoo faral kenn. mi ngi dépendre li nga xam ne moom la ko euh, Macky Sall bëgg ndax day doonaat candidat en deux mille vingt quatre mi ngi dépendre ci li mu bëgg benn ñaar de delà de li nga xam ne moom lay bëgg li ñuy dëgmal ci fi nga xam ne moom mooy assemblée assemblée nationale bi la recomposition bi nga xam ne séntu nañ ko de la famille libérale yàlla rek a xam ndax dina am wala du am mais loolu su fekkee dafay am dafay bari ay conditionnalité yoo nga xam ne moom moo cee am ci recomposition li nga xam ne moom mooy famille famille libérale de sorte que buntu Karim Wade pour mu dellu si waat réew mi dafa dépendre ci lu bari mais yaakaar naa ne amnistie Karim Wade day yóbbaale li nga xam ne moom mooy amnistie Karim euh, euh, euh, Khalifa Sall comme amnistie Khalifa Sall day yóbbaale ki nga xam ne moom mooy am na si Karim Wade yaakaar naa ne loolu loolu la ñu war a mën a mais ñetteelu mandat wala ñetteelu candidature président mac Sall ndax jàppoo ne loolu fi mu moom génn na ci xelam bu doon mag ci xelam wala ay farandoom bi élection yi passé lu tax mu war a génn ci xelam bu fekkee dafa nekkoon ci xelam. taxawaay bi li Sénégal yi wane ci élection yi. ndax benn am na juróom-ñett fukk ak ñaar. waaw waroon na mën a doom li nga xam ne moom mooy cëslaay ci wàllu njàngat ñii kat war nañ ma signal waruma mën a dem ci li nga xam ne moom mooy troisième mandat mais dafa am loo xam ne moom laa la wax sànq pétrole bi bu ballee gaz bi ñu di ko jaay mu jur ay milliards yu bari yoo xam ne dañ koy tasaare Sénégal gi Sénégalais yi mën naa lëmbaaje li nga xam ne moom mooy carte bi. ah jàpp nga loolu. waaw waaw loolu laa jàpp. d' accord léegi. que njàngat la rek ah. d' accord njàngat waxuma ne loolu lay am. d' accord léegi euh, intercoalition wàllu yeewi tey politiquement tey Khalifa Sall. wala Ousmane Sonko wala Karim wadd kan moo si ëpp avantage kan moo si ëpp ëpple bu den tey euh, bi nga gisee élection yi ak configuration bi kan nga jàpp ne njariñ li ci moom la ëppee ci wàllum promotion ci wàllum visibilité politique. mais mais mais kooku kooku kooku sëriñ bi Ousmane Sonko la. Ah. Sonko moo battre Sonko la Sénégal yi gis Sonko moom moo dox. am na ci suñu naataangoo yoo nga xam ne sax ñoom ca ngoon ga bari laata wax benn résultat nee nañu la la la victoire de Sonko ci li nga xam ne moom mooy démarche bi. ndax est-ce que yow jàpp nga ne c'est la victoire de osman Sonko. a ah oui oui oui ah oui oui ah parce que nag wax moom li li mu def ci campagne bi dama naan Mimi Touré ma nga xam ni tey moo nekkoon ca beneen lang ga te bu fekkee dañuy xool ci nawle politique Mimi Touré du nawleem du nawleem ci wàllu li tax ma ne du du nawleem maanaam Mimi tête de liste su ñi nga xam ne ñoom ñooy Benno Yaakaar la woon Ousmane Sonko était disqualifié mais moom moo yanu li nga xam ne moom mooy lu combat des suppléants ba tey ñi nga xam ne ñoom ñooy intercoalition bi am li nga xam ne moom la ñu am ci wàllu wi nga xam ne moom mooy wàllu taxawaay ah oui quelque part dañ naan c'est une victoire Sonko en tout cas ci li nga xam ne moom mooy progression politique c'est indéniable kenn mënu ko ko weddil d'accord léegi dernière question Pape Amadou Fall léegi tey bu ñu amnistie woon Karim Wade ak Khalifa Sall bàyyi leen ñuy lëmbee Xalim Karim di lëmbee uh, Ousmane di lëmbee uh, Sall ndax jàpp nga ne dina wàññi lu bëri ci dayo bi Ousmane sonk am jamono ji. Uh, bu carte gi wuree bu pënd bi wuree am ay njàngat yu gën a xóot parce que ci wàllu wi nga xam ne moom mooy taxawaay Ousmane Sonko man ci li nga xam ne moom lay jàngat baatam daf ko dottu lu ko neex lay wax li ma gis rek nag moom la lay wax Ousmane Sonko bare na ñoo xam ne boo voté nañu li nga xam ne moom mooy liste ku jéggi non pas parce que Ousmane Sonko mais Sénégalais yi dañoo toll foo xam ne dañoo nekk ci li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe mu am ko nga xam ne nag dikk na ak langage am boo xam ne euh, surtout ndaw yi surtout ndaw yi topp nañ ko te xoolu ñu benn xoolu ñu benn liste waaw na na fi Macky Sall na fi benn jógee loolu la nit ñi wote de manière générale mais lu tax kon voté wuñu yeneen coalition yi la moo tax demuñu voté yeneen coalition yi mais parce que li moom laa lay wax boobu ak léegi Ousmane Sonko li mu symboliser la ok dafa symboliser yaakaar pour ñoom dafa symboliser espoir pour ñoom mais loolu bu ñu weesoo loolu loolu première grille la mhm. mu am deux trois quatre cinq grilles yoo xam ne daf ciy topp ci wàll wi nga xam ne moom mooy yar ci wàll wi nga xam ne moom mooy teggin ci wàll wi nga xam ne moom mooy yaakaar jëm ci yu mel noonu yooyu yeneen grille de lecture la yoo xam ne ni dina dinañ amaat toogu apprécier ko ba xam noonu la wala du noonu <laughs> d'accord moo tax uh-huh. ci wàll wi nga xam ne moom mooy gis-gis bu bu Khalifa Sall yëkkatee kàddoom danañu xam exactement lan mooy projet pour réew parce que ba fii mu toll nii nag ku jegi joxe gu ñu projet pour réew mi ah loolu aussi ko wax de amul lenn loo xam ne lu programmatique loo xam ne indi nañ ko pour ne Sénégal fële lañ ko jëmee xam nga Macky Sall mën ngaa taxaw di di ngaañ ci par rapport a ses priorités te laaj nga ko sànq par rapport ak priorité yi nga xam ne moom la indi mais ku jegi nañu wax ñoom it euh, buñ ca tolloo te amoon nañ occasion bi ci li nga xam ne moom mooy législative bi wax ñu lan mooy seen priorité aar Sénégal da ngay dégg li nga xam ne moom mooy seen priorité bunt bi da ngay dégg li nga xam ne moom mooy seeni priorité xëy na nañu déglu wuñ leen mais lañ doon baax pour li nga xam ne moom mooy Sénégal lu nit mën a dégg la. waaw mais mais mais yeewi tamit euh, wax nañu ne danañu indi loi yoo xam ne dañuy wàññi dund gi loi danañu teg ay commission yoo xam ne képp ku ñu njort ne luubal nga alalu askan wi nga leeral ko yooyu yëpp euh, wax nañ ko aussi seen campagne bi. loolu loolu loolu par rapport ak li nga xam ne moom lañ doon dégg ci réew mi lan moo cay li nga xam ne moom mooy lu bees. lan mooy la nga xam ne moom moo cay lu bees. waaw mais ñoom bu ñu jàppee ne. réew mi non bu ñu jàppee bu ñu jàppee ne réew mi li tax mu deltu ginnaaw. injustice la ak luubal alalu réew mi te dara du la fekk bu ñu jàppee ne looloo tax mu deltu ginnaaw est-ce que lu jàpp ñu loolu mooy option un seen programme. ba tey nangul naa la ko mais démarche programmatique bi moom la ñu bëggoon mu gën a mu gën a taxaw ci wàllu nga xam ne moom mooy dégg dégg mais jërëjëf euh, Pape Amadou Fall kontaan naa ci émission bi invité la tey ñoo ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen euh, ñaanal euh, dimanche su jàmm di ñaanal réew mi jàmm te nag ñu jàpp ne njaw des na xam bi ne. <laughs> dëgg la que yaakaar li tax ma ne njaw des na xam bi mooy ku jigi dañuy dugal ay recours. kon conseil constitutionnel dañuy déglu fi mu toll nii. ci wàllu yu nga xam ne moom mooy résultat définitif. dëgg la lii ñu lépp nag ay résultat provisoire la rek yu nga xam ne dañ ko joxe. Mhm. commission de recensement des votes joxe ko. mais conseil constitutionnel recours yi nga xam ne moom la ñenn ñeent ñeneen ñi dugal su fekkee am na foofa la ñuy mën a wax ne diw mi am na li diw mi am na lii lii mooy dem assemblée nationale. jërëjëf yàlla nañ fi yàlla yóbbu ci jàmm. amiin jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, Pape Amadou Fall euh, analyste politique moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.